juróom benn fukk ak juróom ñaar faw nga judduwaat asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw xam na nu te ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ba fi nu toll ci sunu gëstu ci linjil bu sell bi gisoon nanu ne almasi bi yeesu kenn rekk la woon ci juddoom ci jikkoom ak ci jëfam te ci émission bi weesu ràññe woon nañu it ne yeesu kenn rekk la ci njàngaleem mësula am keneen ku wax kàddu yu xóot te leer ni moom ñi ko doon déglu waaru woon nañu lool ndaxte jàngal na leen ak sañ bu seeni sëriñ ak seeni xutbakat amul juróomi baat yi génne ci gémmiñu yeesu moo gënoona am njariñ fukki junniy baat yu bàyyi ko ci seeni kilifay diina yooya noonu gisoon nanu ne ñi ëpp ci kilifay yawut ya béguñu woon ci wax yeesu yi yamul woon rekk ci jàngale lu woroo ak seeni aada waaye dafa doon feeñal itam seen naafeq ci kanamu ñépp loolu lanu doon dégg ci njàng mi weesu ci li yeesu waare woon ca tund wa waare bi mu def bés boobu mënees na ko tënk ci juróomi baat juróomi baat yooyu ñooy bu leen mel ni naafeq yi lu taxoon yeesu wax mbooloo ma bu leen mel ni naafeq yi ndaxte naafeq lu ñaawa ñaaw la fa kanam yàlla te di sànke xam ngeen naafeq su amee kenn ku mbubboo jikko ju dëppoowul ak li nekk ci biir xolam naafeq la nitu naafeq dafa mel ni bàmmeel bu ñu weexal melow wu rafet la am ci biti waaye ci biir dafa fees dell ak tilim ju nekk wante kenn mënula nax yàlla lépp a ubbiku ba ne fàng ci bëtu ki war a àtte naka noonu yéesu mi xam xolu nit gisoon na naafeq gi nekkoon ci boroom diine yi di farisiyen yi ak xutbakat yi ci biti ñu farlu lañu woon ci ñaan yàlla sàkk sarax ak di woor waaye ci seen biir xol soppuñu woon yàlla ak kàddoom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 du ngeen tàbbi mukk ci nguuru yàlla aji kawe ji waaye yéen ñi xam seen ñàkk doole ngir neex yàlla barkel ngeen ndaxte nguuru yàlla aji kawe ji yéen a ko yelloo yéen ñi xiif te mar njub barkel ngeen ndax dingeen regg yéen ñi am xol bu sell barkel ngeen ndax dingeen gis yàlla nangeen nag mat ni yàlla seen baay bi ci kaw mate jaar leen ci bunt bu xat bi ndaxte bunt bi ak yoon wi jëm sànku yaatu nañu te ñi ci jaar bare waaye buntu dund gu wóor xat na te yoon wi jëm kaw sew na te ñi ko gis barewul noonu la yéesu borom bi doon xiire nit ñi ñu tànn yoon wi jëm ci dund gu dul jeex gi ndax jàpp ngeen li yéesu wax ci mbirum yoonu mucc wi ku bëgg a gis yàlla te dëkk ci jataayam bu faw nu mu wara mel lan la yeesu wax ci loolu ci tënk mu ne faw nga am xol bu sell te mat sëkk waaye naka la doomu aadama mi sosoo ci bàkkaar mën a ame xol bu sell te mat sëkk ndax mën na dem ba xolam bu bon soppaliku nekk xol bu sell ni ko yàlla bëgge mukk nit ci boppam amul menn pexe ngir sellal xolam lu bant yàgg-yàgg ci biir ndox du tax mu soppaliku mukk jasig te naka noonu ñun ñiy bàkkaarkat itam mënunu def dara lu nuy jubaleek yàlla wante lu të nit tewul yàlla léegi nag nanu jëm kanam ci linjiil ba gis ni benn boroom diine bu dëkk yerusalem seete woon yéesu guddi ngir xam ni bàkkaarkat mën a amee xol bu bees te sell ba am wàll ci dund gu jeex gi nu ngi jàng ci linjiil nu yowaana saar ñett mbind mi nee amoon na ca farisiyen ya nit ku ñu naan nikodem te mu bokk ca kilifay yawut ya genn guddi mu ñëw ca yéesu ne ko kilifa gi xam nanu ne yàlla la yónni ngir nga jàngal nu ndaxte kenn mënula def firnde yi ngay wone te yàlla àndul ak moom yeesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax képp ku judduwaatul doo mën a seede nguuru yàlla gi dem ne ko nit ku xas ba màggat nan lay mën a judduwaate ndax day dellu ci biiru yaayam ngir judduwaat yéesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax ku judduwul ci ndox ak ci xelum yàlla doo mën a bokk ci nguurug yàlla lu juddoo ci nit nit la waaye lu juddoo ci xelum yàlla xel la li ma ne faaw ngeen judduwaat bu mu la jaaxal ngelaw fu ko neex lay jublu yaa ngi koy dégg waaye xamuloo fu mu jóge xamuloo fu mu jëm noonu la mel it ci képp ku juddoo ci xelum yàlla ci baat yooyu nikodem ne nu loolu mën a ame yeesu tontu ko ne yow yaay jàngal bànni israel te xamuloo mbir yi ci dëgg dëgg maa ngi la koy wax noo ngi wax li nu xam di nettali li nu gis waaye nangu wuleen a gëm li nu seede gannaaw gëmu leen li ma leen di wax ci mbiri àddina naka ngeen mën a gëme bu ma leen waxee ci mbiri asamaan kenn mësula yéeg ci asamaan su dul ki fa jóge muy doomu nit ki maanaam almasi bi te itam na musaa sampe woon ab bant ca diggu mànding ma takk ca jaan ja mu defare woon xànjar faaw ñu yëkkatee noonu doomu nit ki ngir képp ku ko gëm am ci moom dundu gudul jeex ndax te yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gu jeex te doo sànku mukk amin nanu xalaat tuuti ci li borom bi yéesu wax kilifag diine gi ñu naan nikodem lan la yéesu wax nikodem ne moo war a xew ci moom bala mu mën a am wàll ci dund gu jeex gi mu ne ko ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax képp ku judduwaatul doo mën a seede nguurug yàlla faw nga judduwaat ndax nikodem xamoon na lu judduwaat boobu di tekki déedéet looloo taxoon yéesu wax ko ne yow yaay jàngal bànni israel te xamuloo mbir yi lu juddoo ci nit nit la waaye lu juddoo ci xelum yàlla xel la li ma ne faw ngeen judduwaat bu mu la jaaxal ci tënk yeesoo ngi doon wax nikodem naan ko ku bëgg a gis yàlla te dëkk ci jataayam bu sell diirub alaxira faw nga juddu ñaar yoon loolu tekkiwul ne danga war a dellu ci sa biiru yaay ngir judduwaat waaye li judduwaat boobu di tekki mooy faw xelum yàlla juddu laat la ci laabal sa xol te yeesa laat la ci dooleem faw nga juddoo ci kàttan gu jóge ci kaw ci lu bokkul dara ak mbubboo diine faaw nga soppeeku ci sa biir xol lu juddoo ci aadama dafa taq bàkkaar te mënula am wàll ci nguurug yàlla te doom aadama yi amuñu benn doole ngir dindi bàkkaar bi nekk ci seen biir xol ni yàgg ci ndox dul soppale ab bant jasig noonu itam yàgg ci def jëfi diine ak jëf yu baax yi mënula selal mukk xol bu bon bi faw yàlla moom ci boppam def kéemaan ci sa xol yeesalaat ko ndaxte lu yàqu mënula am wàll ci liy sax abadan faw nga juddu judduwaat moom la yéesu doon jàngal boroom diine boobu di nikodem ko noonu mën nanu dégg ni nikodem laaje yeesu ne ko nu loolu mën a ame maanaam naka laa mën a judduwaate ba am xol bu bees te sell yéesu tontu ko ne na muusa sampe woon ab bant ca diggu màndiŋ ma takk ca jaan ja defare woon xànjar faaw ñu yëkkatee noonu doomu nit ki ngir képp ku ko gëm am ci moom dund gu dul jeex ndaxte yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund dul jeex te doo sànku mukk naka noonu ngir xamal ni ko dem ni mu mën a rëcc ci àtteb safara te am wàll ci dund dul jeex gi yéesu fàttali na ko li xewoon aki maamam ca màndig ma ci jamono yonent yàlla musa ni nu ko gise woon ba noppi ci tawret amoon na bés bànni israel doon xultuwaat fa kanam musa ak yàlla ba taxoon yàlla yebal ci seen biir ay jaan yu am dangar ñu màtt leen te ñu bare dee waaye bi bànni israel réccoo gisoon nanu ni yàlla sante woon musa mu defarlu jaanu xànjar yëkkati ko cib bant ngir képp ku ko xool rekk doxe fa wér baña dee naka noonu yeeso ngi doon wax ni ko dem ne ni bànni israel waroon a xoole ci bant ba rekk ngir mucc ci de noonu la doom aadama wara gëme rekk pexe mucc mi yàlla indi ngir baña tàbbi safara ñun ñépp dañu mel ni bànni israel yi jaan ya seytaane dafa mel ni jaan ju am dangar te bàkkaar mel ni dangar juy fàdd nit ci lu wér seytaane màtt na doomi aadama yépp te dangaru bàkkaar naroon nanu sànk ci safara ba faw su fekkoon ne yàlla saafaraalu nu ko amunu menn pexe ngir musal sunu bopp ci àtteb yàlla ndaxte peyug bàkkaar mooy dee ak safara su dul fey mukk waaye cant ñeel na yàlla aji sax ji ndaxte ni mu rabate woon pexe ngir musal bànni israel ci dangaru jaan ya noonu itam la rabate pexe ngir musal doomu aadama yi ci dangaru bàkkaar ndax xam nga lan mooy pexem yàlla ngir wéral te yeesalaat xoli doomu aadama yi fees dell ak bàkkaar lan la borom bi yeesu wax ci loolu mu ne faaw ñu wekk ramukat bu sell bi ci bant ngir mu dee ci palaasu bàkkaarkat yi ngir képp ku ko gëm am ci moom dund gudul jeex te doo sànku mukk kan moo mën a mucc nag lan la mbind mi wax nee na képp ku ko gëm doo sànku mukk lan lañu war a gëm nag kan lañu war a gëm faw nga gëm ramukat bi yàlla yónni te nangu ko ni sa musalkat faw nga gëm ne yàlla mi bëggul kenn sànku yónnil na la ab musalkat bu sel ngir mu gàddul la sa boru bàkkaar ci lu wér peyug bàkkaar mooy dee waaye tontub yàlla bu jub ci bàkkaar mooy deewuk ramukat bi ca bant ba moom mi jub ngir nun ñi jubadi mbokk yi yàlla soppikuwul li borom bi yeesu waxoon dem am na daanaka ñaari junni at mu ngi la koy wax tey yow itam faw nga judduwaat yàlla dafa la bëgg a laat ci laabal sa xol te laat la ci dooleem wante faw nga gëm xebaaram bu baax bi faw nga gëm almasi bi mu yónni faw nga gëm ne yéesu mi mësula def bàkkaar gàddul na la sa boru bàkkaar ngir nga mën a dëkk ci jataayu yàlla ba faaw faaw nga judduwaat ndaxte kàddug yàlla nee na képp ku judduwaatul doo mën a seede nguurug yàlla jërë ngeen jëf ci déglu bi ci njàng mi ñëw bu neexee yàlla dina dinanu jëm kanam ci liñ linjiil ngir dégg ni borom bi yéesu waxtaane ak jigéen ju amoon juróomi jëkkër su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li almasi bi yeesu wax bi mu naan li ma ne faaw ngeen judduwaat bu mu leer jaaxal yéen ñi am xol bu sell barkel ngeen ndax dingeen gis yàlla